mbokk yi ñaari xale yaa ngi ci diggi géew bi matu Thiatou Fora Alliance Baldé Thiatou Fora moo ñu woon ginnaaw Alliance Baldé la ñu jàkkaarloo Habib baa ngi laaj ay jugeem journée Habib production Thiatou Fora mbokk yi sànni na Senghor alliance Baldé ngi jàkkaarloog moom alliance Baldé Thiatou Fora le waatoo bi soriantoo nañu ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp ay xeesa booy lañu Thiatou Fora gën a xees mooy pël bi nee nañ tarkindaa bu xees baa ngi Thiatou Franc Alliance Baldé Alliance Baldé cokkaas na léegi door na xeex nañu ñu ngay xeex Thiatou Baldé Alliance Baldé ñu ngay ko mu rëpp takk na ko takk na ko takk na ko Thiatou Franc Alliance Baldé ñu ngay bëre tegal na ko daan na ko tegal na ko 16 daan ko Thiatou Franc daan na ko oh! na Alliance lamba gi noonu takkindaa bu xees bi daan na ko jël bu rëy waay lay lay la laa takkindaa noonu seen bopp fair play bëre nanu xeex nanu yàlla may na dem ki nga xamante ni mooy caatu fora alliance Baldé dama defaru ji wane nga jom fulla ak fayda lamba noonu semaine ñu dem ko fii lañ ko fekk bureau bu nekk yoof mag mu toll ne man paas dem yoof jël taxi ñëw xam lu ma def ci mbedd mi la taxaw ne ma ana médical ma ne ko mun sama saak ma ne ko fii nga koy jëlee ci mbedd mu ne ma waaw moo bi sama saak jox médical mu xool ne ma baaxul ñu def deux jours ma entré fii hôpital euh, bu nekk Pikine Dominique defaat ma médical dem dem ci médecin bi ñu ne voyage na njàmbe ne na ko photo envoyé ma ko xool wax jooju ñu photo ko envoyé ko mu ne non moo fa Ousseyn woo na ma man. Ousseyn ne ma Ousseyn mii woo ma ne ma ay boo bëreewul dañ lay aj man Ousseyn du promoteur daa war a lijjanti journaliste am dëgg la wala dëgg mu woo ma ay boo bëreewul dañ lay aj am na benn booy boo xam dañ ko aj man taalibe laa te damaa ñeme li may def ragal taxul ci man. mais instant laa jëndee. Ousseyn wax na dëgg bu fekkee bu fekkee médical bi dañ ko rejeté. waaw boo bëreewul dañ lay man bi ñu bi ma njàmbee woowee rejet médical bi laa xam ne dina bëri. damaa jugee hôpital tey deux heures laa génn hôpital kon dana stade kii moo jënd ngeen mën ngaa la. deux heures nañ nañ waxtaan. na dañ lay wax dañuy waxtaan deux heures. ku samp butéel ba deux heures. wax dëgg yàlla war nañ laa wax ne saa yow mënoo bëre. mais ma génn hôpital deux heures. kii moo jënd ngeen bi léegi indi ko. barke alxuraanu karim sama yére laa sol ñëw. parce que xam nga lu tax man taalibe Serigne Touba laa ragal dara damaa ñeme. ñëw naa bëri naa yàlla def na li gën dama koy sante suñu borom bu baax bu subaa ma fuggaat samay daal dem entraîné ñoom mënuñu ma xañ mënuñu ma may yàlla moo ma mën a may moo ma mën a xañ maa ngi koy gërëm di ko sant di ñaanal Sénégal yëpp ja di wax journaliste liggéey journaliste boo ci nekkee da nga ciy yem ci liggéey léegi sànq bi ñu leen présenté wax bi kàddu bi da nga ko waaw mais am na kenn ci membre CNG yi mooy mu ni quatre fois ces quatre derniers combats yëpp da nga déposé médical naa déposé médical lu dul benn tey médical. Hmm. yàlla bu ma gisanteeg sama yaay tey. maa ngi doog a déposé médical bu ma duggee ci làmb ba léegi bëre 14 combats c'est la ma déposé médical. man damaa ñeme li may def mais dafa war a rafet ñun ay doomu jàmbur la ñàmme am na doom mais CNG bi am na doom kon war nañoo jox cër ñun mënuñu génn hôpital deux heures di ñëw di bëre mais nag sant yàlla yal na leen yàlla jàmm yéen ñi ñëw nañu ci combat bi. waaw dara sant yàlla rek. maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi sant ah. di sant waa jàmm gën. Eh, surtout madame la maire bi. daa def tey geste bu garaaw. waa jàmm gën yëpp barke yàlla di sant Baye di sant Derki Ndaye. tey dañoo taxawu bis bi. di sant boo yëpp barke Alxuraan. xaw ma seen fay. waaw ah, combat bi man de xaw ma sax nu ma bëree. en tout cas daal dóorante nañ man ak moom jaxasoo nañ jël naa coup jël na coup waaw. sinon ba léegi xamoon na ko daan. ah en tout rek ma song ko xaw hmm. taxaw ni contesté nee na dafa dafa dafa feebar tey hôpital la jógee feebar waaw dama koy nangu parce que ma fi mu nekkoon waaw maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla may tan may ko wér.